ahir bi rek mhm. mooy fi Maodo ganee àdduna radiyallahu anhu moo di bi mu génnee àdduna fiñ ko denc moo di Tiwaawan diggante yonent bi fu mu ganee àdduna sallallahu fu mu fuñ ko denc Madiina Munawwara diggante gaaya ak Tiwaawan ak Makka ak Madina quatre cent la ëppul yéesu ko laa ilaaha illallaah man mii maa la koy wax at mu jot nga dégg lu bees mu musoo ma ko kenn musuma ko wax ci Maodo laa ilaaha illallaah fi yonent bi ganee àdduna hmm. ak fi ñu ko suul sallallahu alayhi fi ganee àdduna ak fi ñu ko suul quatre la ëppul yéesu loolu doy na ci ni Maodo mu wuutu yonent bi. Maodo ku mu doon. soo demoon ca gaaya armeel ya fa nekk baqee lan ko.